naa ko biir mbéere dina ma tëjooy dama ñëw a jóg maay yàgg laay xalaatoo nga kum na yu papa ku tiir ma way ñëwaat nañu am mbégte présenté leen seen émission Tangana People lu ñu koy defee saa su ne waaye tey ne dañoo am nag gan boo xam ne dafa am solo lool mu tuddee ko l'étoile filante de la musique sénégalaise muy doomu Pikine ginnaaw raay Baba Mbaye nga maa ngi lay fay ngoone bu baax kontaan leen gën a kontaan man mi ñëw fekk leen fii nga xam ni fan yi mooy yëngal. dëgg la ñu bàyyi la nga nuyoo ak eh, internet yi nga xam ne ñoo lay seetaan. nuyu Sénégal di nuyu partout dans le monde di nuyu rawatina sama gox bi ma jógee muy Pikine ginnaaw raay caaro yi ak fépp way nek ma ngi lay nuyu ma ngi lay siarat bu baax a baax. Mhm. artiste nga kat nga xam nañ la bu baax mais nak dan ngay présenter wu ñi nga xam ne ñu la xam bu baax. donay waaliye wule ñaani ngal ye jamuri cho wule geyna goye ye Yo jam faale baayo biram xale biram naane khadimo sa njaal waale ma anta maali gànn paal ko mo jokko la ni woowe seet maam doomi ndeyu faadal te ji ma la nuyu na la man mi ah kontaan nañ bu baax baax lan nga ñu mëna wax ci Bamba fan nga dooree fan nga commencé lan mëna duggal ci li nga xam moy musique ñi ngi Pikine Pikine bi ñu dëkk ginaaw raay ndax ñi ngi tàmbali suñu carrière 2007 2007 lañ commencé nek ci art bi ñëk and ak euh, nanan lu mag ñu nan ko Seka bi ñu ànd ak Seka euh, ba yalla def jëmi jamono yalla bo lañu ivnia Nia bi ñuy liggéey Yves ba affaire di gëna dox yalla bo lañu Daba Sey sama yaay ma ngi koy nuyu suma xarit euh, suma lepp ndax momit luma nek ma nga ca ñu dem ba jëmi jamono ba 2009 yalla bo lañu mbay Guèye fay ñu ànd ak moom liggéey ba 2013 nag jàpp 2014 ci lañ commencé suñu carrière bopp. lan lan lan moo la dugal ci way du tax nga jël bay rek taamu ko wala don la wala yàlla moo ko def ci ñun ay doomu géwal lañ ñun ay doomu géwal lañ xam nga te nekk na loo xam ni nekkul woon suñu ambition mais yàlla lu mu tudd ci nit xëñ na suñu borom da koy namm ci yow da koy def yàlla dogal tey jii li tax ma gën a nekk waykat sama yaay ak suma mag mu faal ak suma yaay bi ma jur ñom ñoo gëna tax man ma nek artiste dedet ñom bu ma sa na tok di wayantu ñu ne ma yaay ngi yak xaaliss deug la ndax baat bi dafa neex ma allah parce que amna na loo mi ngi ci yaw ta mi ngi nalaw ta xamna ni bo gorgolo dina yew après c'est Seka jël ma yob ma studio bi ma yobé studio nak euh, di enregistrer ben album bi mu ñëw ñëk ma dugal studio Jibi mbay bi ma takkee dama ko lu ma mu ne ma lo wax baxna ndekete man boobu am na luy nelaw ci man xaw ma ko après nag bi ñu paree mu yëkkati benn xaalis voleur cent mille francs jox ma ma ne ko waaw lii lan la mu ne ma nag musique moo demee nii lii nga liggéey moom lañ la fay ma ne ko nag bis ni ki tey adhéré wu naa. <laughs> kon daal loolu moo la dugal. <laughs> moo ma ci dugal. <laughs> da nga doon awu wala fekkoon na nga génne sa fu bopp. non non non non dama doon awu ndax bi ma tàmbalee dama topp ci gars yi. dama topp ci gars yi ànd ak Abu Cubalo ay Mbapat ànd ak ànd ak Yves Niang ànd ak Daba Sey ànd ak Mbaye Gueye Faye Mhm, kon doon nga way ay mbapat. waaw daan nañ waaw dina pikin nag boo fa dëkkee faaw nga jaar ci loolu nag. à part mbapat lu daan mbapat da ngay laal mbapat. simb ngénte yi tuuru famille doo bàyyi dara. noo daan waye mbapat noo daan waye. ah ngañ dem ba ak Waly Ndiaye guy gënis na. ngañ dem ba baay waali njaay a ah, tureer na loolu neex na est-ce dina tamit xam nga nu ñu ko defee gis na musiciens yu bari léegi lu ñu jël mooy maanaam bu amee ay takk ay yooyu ñu dem defal la ñu woo la waxtaan ak yow ba ngeen jub waaw nga dem way takk est-ce que baaba dina def bu bu baax ndax yaakaar naa ne weekend yi ñu jub si nii yépp ci mois de mars bi suñu calendrier chargé wu na waaw yaakaar naa ni biñ ci nekkee boobu ba tey nag chaque weekend ñu ngi yëngu waaw chaque weekend ñu ngi yëngu ci mariage yi waaw. est-ce que am nga orchestre. bu baax am naa orchestre l'étoile montante. ah kon ni ma la ko waxee. dafa mel ni waaw mën na xaw ma ku la dee ndax sànq bi nga waxee loolu sax dama xaw a jaaxle ah. mais noonu la groupe bi tuddu xam nga ñu nekk nag ay ndaw di góorlu nag yaakaar naa ni milieu yu bari see nañ fa milieu yu bari see nañ fa. ba yàlla dogal ne fi ñu toll ba fi ñu toll nii ndax yàggul dara le 29 décembre bi passé ñu ngi amoon ak waa presse benn contrat fii la ci Saaraba mais yàlla dogaloon na lépp def na yàlla def na ci ndam. ba nag la gisee euh, musique sénégalaise mbalax bi bari na coow dugg beeg génn bi ku nekk nga ci wax mais yow sa point de vue noo gisee mbalax ci biir Sénégal. xam nga euh, lu baax lu baaxul moom kenn kenn du daw di ko wuti pour man xëñ na ni baax gi mu baax ak ku ci nekk nag nekk ci bu bëgg a dimbali say waajur ak ñi sa ginnaaw moom moo la tax ngay ñafe man pour man ku nekk rek na bay sa waar te kenn bañ a kenn. Hmm. ban relation nga am ak sa mbokk artistes yi am na ñu la fi jiitu am na ñoo fi fekk si nooy doxale ak ñoom. waaw man ñëpp laa seqal jàmm oma kenn xaar ma yàlla yàlla dogal na ni ku ma bëgg seet si dama lay seeti ku xewle su ma amee envie pour baali la damay dem baali la waaw ku ñëw tamit dañuy bokk scène bi partagé. Mm. gis nañu sax keroog bi Pape Diouf doon tëgg macha allah yéen ñëpp ngeen daal di ñëw mm. toj toj ngeen foofu surtout yow moom wax dëgg yàlla nga fa def moom ba tey mi ngi mi ngi tege Baba noo gisee Tangana people. Tangana people xam nga tàngan yi da ngeen indi loo xam ni moom la ñëpp di wër te amatul ndax Tangana baa maa gën a neex nga ñëw fekk meew nesale bi ñu bënd ñaari tur yi xam nga mu la wax <laughs> teg nooy bees bi xam nga man moom yi yi yi nooy bés laa ko tuddee mayonnaise nag moom laa gën a bëgg sama xol ci àdduna. comme que tàng naa people la ñu wax dañ lay bàyyi rek nga daal di kii euh, xam nga rek. ndekki ci ah, damaa mën a ndekki de. ah kon bisimilah. waa léegi nag ndekkil nag maa ngi koy may xaar Dieng. ak Demba Diaga ak estafu baaw ci laa bokk yëpp. ak Bamba ak Cheikh Ndiaye. acca kon bisimilah yow nag looy xaar. non kon yaa ma invité kon defaral. kàcce. <laughs> ku biir mbeere dina ma sa jooy dama ñëwa jógo maay yàgg laay xalaatoo mbokkum ndoyu papa sekk Tuubaa ku tiir ma way ça c'est beau bismillah apalagi ada def sa aja siapa lip menang Cuma ya, bes, mau main tagar nooy bees Ayo nga sukala jaay aha nabu jaay salvador mbaalu mooy siiri mu siisi la aduna aduna aduna ko naka nga xaaj alaaji baay seeneewuna aduna ko mbila jeeri alaaji baay gisee meew bi. meew bi de mu toll nii sama yaram bi tooy gi ci nekkoon nit du ko wàcc. kon daa tàng naa mu ngi fi toj. parcours yi ñuy dox dafa métti sama dënd bi yëpp poussière la woon mais fi mu toll nii moom macha allah. <laughs> kon kon kon da kon kon neex na baaba nag waykat dëgg comme ni ñu koy wax am na sax yow fi jot def léegi mais dañuy wax ne waykat dëgg soo ko bëggee xam rek du am ja du am sabar du am guitare du am dara danga koy bàyyi rek mu yëkkati ñu bàyyi la nga way ñu xool. nee ma lii laa bëgg. noo ko defee baax na fi mu ne kañ waaw loo def gën loo. ku yi géwal jugal ku ciy géwal yëngul way la jot na tey géwal la nuy béegal ku géwal jugal ku ciy géwal yëngul way la jot na tey géwal la nuy béegal ku ma ñoom la ngoone ji seen maam. isa paate gwe jimbaay seen maam dece ko dool jigéenay seen maam yow caamoo te jima jiin la faat si la jugal yaayu fàllu yëngul way ko jot na tey géwal la nuy béegal ah, nday ab sa jugal yaayu aji yëngul way la jot na tey géwal la nuy béegal ku ma ñoom re ngoone jeey seen maam isa paate gwe jimbaay seen maam dece ko dool ji génney seet maam maam faatu njaay mbuub tey ji may lin la dëgg la. waa lii single bu bees la. single bu bees la bientôt du yàgg dara dangeen gis vidéo bi ci lañ nekk. Mhm. ñu ci nekk di try incha bi xam naa bu ñu liggéey ci événement 5 bi. du yàgg dara euh, avant ñoo mhm. duggaat ravin dañuy pare video ba pare incha bi mooy morceau bi géwal la tudd. waaw ci lañ may way ci ñu ma magi géwal yi ku ci mel ni El Hadj Bekkay Mbaye ku ci mel ni alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose ku ci mel ni suñu maam alaaji Mansour mbay ak géwél yu baax yëpp waaw eh, waaw bay say wewu tànk. waaw kay kon kontaan. incha allah ah, moo nekk say say projet. yi nag moom mooy incha allah rabbi bu ñu paree vidéo bi ñu ngi ci album bi. Mhm. bu ñu paree album bi ñu ngi waajal anniversaire ñu ngi waajal anniversaire après Sorano. loolu moo nekk gum projet yi. ñu gis nak yeen euh, way kat ngeen way ci Sénégal ngeen bok mm-hmm. ñepp dañ leen di déglu bu ngeen waxee nit ñi def ay conseil bu ngeen ko joxee parce que xam nga li wax ne li nga bëgg way li nga bëgg wax ci mm-hmm. musique nga koy jaarale muy message gis nañu ne fan yi xalé dañ leen commencé di leen sàcc di leen sakal pexé en tant que acteur culturel yow lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay dafa doy waar rek dafa doy waar ndax légui rek euh, bi ma suma connexion bi ma sama sama euh, ki niko ñu ko waxee whatsapp ma ngi ci gis ben photo bo xamni sama yaram dafa daw moo ko wanee gars yi alal jaru ko alal jaru ko nguur jaru ko dara jaru ko ndax ñun ñëpp ñoo bokk fi ñuy dellu ci yàlla man message boobu laay sànni ku ci nekk rek xalaatal ni bis dina ñëw dinañ la takk ba nga dëgër denc la kon lépp looy def rek nanga nga ko teg ci loo xam ne dina neex suñu borom ba ëllëg doo la ak sa borom. Mm. Mbaba jaajëf nañu bu baax rafet loolu sa teewaay ndax ni ma koy waxee saa yu ko woo mu ñëw wis la rek ça veut dire que yëg la bu baax léegi nag ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu doon seetaan Tangana People. waaw ñu ngi nuyu ñëpp nag di kontaan ci émission bi di kontaan ci yow Ngone ak Xaadim suma xarit suma lépp nag di la wax ni nag bonne continuation. ñu ngi ñaan affaire bi dem ba saawaan baawaan te yéen a ngi ci nag ndax ne nii nag yéenay bomb dëgg la waaw ne ni ku bëgg image bu leer rek da ñëw Dakar ak <laughs> day neexul macha allah <laughs> kon yéen tam ñu doon seetaan Tangana People ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier nag équipe bi nga xam ne ñoom laa àndaloon muy Bambaña ak El Pro jaajëfal nañ leen bu baax jox leen rendez-vous beneen émission ak beneen daanaan